Bienvenue sur Salam ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur yàlla dolli noo ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb Sayxi Fadilu mi buur ay maqaama yàllaw ñuy ci wàllu ñaan yàlla lu yàgg nag suñu boroom dinay faral di wax ci alxuraan ni loola dëgg la mag ñu baax ñet dinañ ko wax comme yàgg nañoo ak ñoom lool at mu jot bu ñëwee dinañ leen ndokkeel siyaara leen dañ koy defee comme nañ ko daan defee rek moo tax ren ñu ngi leen di ndokkeel leen ziyaara mm. di leen ñaanal yàlla yàlla téye leen ci jàmm woyefal seeni yan te itam ubbi seeni bopp tabarkeel seeni njaboot fu ñu mën a nekk ci àdduna bi rek mm-hmm. ñu ngi leen di bàyyi xel comme nit ñu bàyyee xel ñu ngi leen di sopp leen wan ni ñun seeni soppee lañ comme ñoom nit ñu soppee mm. ci àdduna bi fépp bépp jaam daal bu yàlla boole ak man maa ngi koy balu xaq di ko siyaar di ko wax bon fête di ko ñaanal jàmm ak salaam. di ko ñaanal jàmm ak salaam Cheikh Ibrahim ku ne xam na ni euh, tabaski dafa mel ni Sénégalais ba tey mënuñu ko aborder euh, léeg-léeg ñu dégg ci sax yoo xam ne mën nañ ni ay fiction la science fiction maanaam dégg naa ki dem benn waxtaan bu ci wax gàmbu gàmbu xaw doy waar mooy buñ nee subal tabaski wala bésub tabaski ku ci seq ak jabar balaa dee rëy nit ñi naan bay jën bi ku ci jën bay jënu ku ci def nangam ñi naan waxtaan ba ñi naan nangam nangam genre yooyu nga xam ne man mën naa wax ne que ci at bi laa koy suma dégg waaw buur réewum Sénégal mooy réew moo xam ni bis bu ñu xëyee ñett nit wala ñeent nit wut luñ dolli ci diine ji te diine kenn mënu koo yokk mënoo jàng ba yokk ko mënoo doonub jahil ba wàñc dara mm-hmm. inna diinu indallahi lislaam diine yàlla ji bàyyeekoo woon ci yàlla ñëw ci yonent bi Seydina Jibril indi ko islaam la tudd diine ji nag yonent bi bi mu ciy pare dafa jël yàlla def ko muy seedeem sahidallah yonent bi dani man yàlla mooy sama seede ci diine ji annahu laa ilaha illa huwa jël naa malaayika yi def leen seede wa ulul ilmi boroom xam-xam yi xam ñoom def naa leen seede kon diiney lislaam ji yonent bi indi woon yàlla mooy seede diine ji ak malaayika yi nga xam ne duñ mooy yàlla ak boroom xam-xam yi nga xam ni réerewuñ seen boroom ñun nag tabaski fi lañ ko fekk lu jiitu lislaam mi ngi woon ci àdduna ndax ci suñu maam ibrahima alayhi salaam la sosoo mm. rasulullahi leeral ñu ko bàyyil ñu ko fi muy sunna waaye sunna suñuy topp di ko fàttalente di ko dàbbali at mu jot ñu defe kon ni ñu ko yonent bi digalee woon du luñ sos ñun borom xam-xam yi hmm. tabaski nag yii nga ciy dégg ren ci réew mi kenn ku nekk naan tabaski nangam nangam yooyu yëpp dara amu ci lu waroog tabaski la tabaski ñam war mooy ña nga xam ne ragal nañ yàlla taqwallah mi ci seen biir ñoom ñoo war a tabaski ndax tabaski buut bi maanaam boo bëggoon a xam cëslaay li lan la mooy ak ragal yàlla dong moo sos hmm. tabaski taqwa waaw suñu maam Ibrahima ma ko sos ma soxna suñuy wax Haajara ak Ismaayla doomam ci ragal yàlla la yàlla doon natt ñoom seenu ragal yàlla ba jaare ci ca tabaski hmm. xaaf miñ ci njëkk rayit aadama ma doon atte ay doomam ba dina Jibril jël ci xaaf ma aj ko ca kaw asamaan atte gu sosu woon ci ragal yàlla loolaa sababoon mu yóbbu xar ma ba hmm. ñu waree rek ismailaat xar moom rek la ñu wàccee mel na xar jugiwul kaw asamaan di wàcc xar ma yéegoon a wàccaat ngir ñu sàmm bakkinu doomu kon Tabaski histoire la sax boo xam ne dañ ko war a yaatal lool hmm. ñun ñii koy def ci réew mi nag phénomène yiñ ci indi bokku ci bokku ci Tabaski buur du folklore hmm. du folklore mooy mbirum fox du lu ñuy fowee Tabaski mbir la ci mbiri lislaam yi yoo xam ne dañ ko war a taxawal ci sàmmonte teg ko ci diine teg ko ci roy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa teg ko ci roy suñuy boroom xam-xam yii ñu jiital ci réew mi ku ci mel ni maam borom Touba ku ci mel ni Seydi Hadji ku ci mel ni Sey Ibrahima Niass ku ci mel ni sëñ Canaba ku ci mel ni maam bu Kunta Njaasaan mm. ku ci mel ni Cheikh Abdou Khadre Jeylaani ko njabootam ni ñuy tëbaskee tëbaski ga ñuy def ñu man koo jàngale ci ay téere tëbaski yooyu lañu war a roy waaye tëbaski ñëw na rek bu xaaba yee génn mm. <laughs> kenn ku ci nekk naan buum gaag waa réew yi nga xam ne ñu ci àdduna bi duñ jeex di tëbaski te seeni xar duñ ko yeew ñoom fu ñu jële bu doy kon xam-xam defe ne ci ay téere loo wax dañoo war a gëstu ji fa mu jóge waaye loo wax loo xam ni mm-hmm. ci yow mi ko wax rek la jóge loolu du wax ju wér kon nag jigéen ñi nga xam ne ñoom dañoo woye fi bopp seenum njàng sëriwuñ nañ moytu yi ñuy dégg. kon bay jën baag bopp baag mbaq laak wextan waag yooyu yëpp amul benn kii. yooyu yëpp nañ ko teg fële ci suuf doo musa fekk téere boo xam ne Sëñ Tuubaa ko bind ñu def ko ñu wax ko ca. Hmm. wala téere boo xam ne Seydi Hadji Si moodoo ko bind ñu wax ko ca. mag ñi fi jóge mujj ñu bàyyi diine jeet wax nañ lépp diine mosuñu wax loolu. dina nag daa am fu mu bawoo am luñ ci tegtaloo mooy alquranul karim ak xadis yonent bi ak ndonul ulama yi mooy borom xam-xam yu mag yi comme nag yii ñuy wax yépp amu ci buur lii nit ñi di wax ci réew mi boo bëggee dégg amul ay tappale la mën noo ko tuddee daal waaye daal amul walaay waxi ndax ndax man mi jàngul sax xam naa ne waaw askan wi nga xam ne nag ñoom mm. dañoo bëgg di topp dëgg mm. nañ teey ci tegtal yooyu amul leen njariñ te nag dañoo nekk ci monde mystique. Mhm. bari na nit lu muy def ub boppam da koo dégg rek def ko. dëgg la yoon woo xamul fu mu jëm boo fa jaaree di nga dem ci dëkk boo jëmul woon. dégg naa dëgg. kon nañ bàyyi xel bu baax seeni boroom xam-xam ñu leen di yee waaye dégg loo gis for ko lekk ko booy faatu doo wéqu. allahu akbar muy wax ju am am am solo di leeral boo xam ne man ça me tenait au pour que ma ñëw déglu ci yow sa xalaat parce que effectivement phénomène la boo xam ne 2022 gii laa ko soog a dégg man buur waaye sëñ bi. waxtaan nag ah. dégg naa ci waaye daal sant Diop. na nga moytu waxtaan ndax bu soqee ci sa yàpp yàpp toog moom di nga am problème lekk yàq yàq ndawal la gën a man waaw yooyu amul solo eh, sëñ bi kon ñi naan kon tabaski lu ci waay def ci ay xeeti teraanga ak somb nu mu mën a toll dagan na kon est-ce que day tekki ni yàq wala gàtte sa famille am na ci solo. waaw tabaski nag jullit bi daana ci wane mbégte te ñu ëppoon lu ñuy fere ci tabaski rasulullah di leen daan kontaanee. leen daan tàpp tàppal di leen fóon di waxtaan ci ñoom di wax lañ def. waaw ñu ci gënoon a sol sol ca col gu rafet ak ña ci dàqoon a raay bopp jirim yaag ña seen njaboot gënoon a belli mooy seen xar kanam gën a kontaan. yooyu yëpp rasulullah da ko daan savouré moom mi yàlla xamal lan mooy secret sallallahu alayhi wa sallam kon kër yi nga xam ne yàlla mën noonu leen ñuy jënd xarum tabaski mu rafet ñawal seeni soxna ñawal seeni doom te yàlla doo dong tax ñu def ko feetee feet gi te rafetal ko ngir taaral lislaam ñooñoom dañ ci am ab fay seen borom te ñooñu ñooy ñu yàlla dénk diine ji mm-hmm. waaw waaye nag tabaski du farata joo xam ni da nga ciy indil kenn benn pression. jarta lebi. waaw déet déet jaruta lebi sëñ Abdou Lahad Mbacké radiyallahu taala moom doon ne Touba moom ko waa mbaar ma waa mbaar ma mooy ñiy laaj ci ay xaritoo ci bi mu génnee ñetti baat la wax ak ñoom ana ñi nga xam ne am nañ luñ tabaskee luñ ko mën a jëndee ci seen alali bopp nañ yëkkati seen loxo ñu yëkkati mu ne war na leen jug leen ngeen dem def ko ana ñi nga xam ne amuñu lu ñu jëndee tabaski amuñu ko ci seeni poos te dañuy jub rek dem di ko lebi ñu ni ko ñoo ngi nii yëkkati seeni loxo mu leen yàlla wàcc na leen ko mu wàcc leen ko lislaam moom loo mënul suñ borom teggil na la ko rawatina ci sunna kon tabaski noonu la demee waaye nag ku ko man def ko moo gën bëgguñu tamit ku ko man jullu ci tappale tax nga naan mënuma ko waa xam nga bu ñu waxee fête yi man sama cible mooy xale jigéen ñi xale jigéen yi ñu ngi dugg ci lu ne pour mën a rafet ci bés bi ñenn ñi dem nañu sax ba yegg sax di moyen yàlla annonce bi la pour mën a satisfaire seen bopp ci wàllu greffage ci wàllu ak cork waaw man nag su ma sañoon mhm. nit looy jox sa moroomu nit sax da koy rafetal ësantuma la ak loo jox yàlla mhm. xar moo xam ne bé béjjën lay wecc bakkan lay wecc nga war ko jënd rey ko ngir yàlla malaayika yi taxaw seede ko yonent bi yàlla yónni taxaw seede ko awliyaa u yépp seede ko diggante kasa asamaan ak suuf booy rey xarum tabaski ngir yàlla amul lu koy umpale xar moomu ngay rey seede ko nga jël alal joo xam ni neexul yàlla neexul boroom xam-xam yi neexul malaayika yi nga jël ko dugal ko ca def ko ca loolu ñaawlu naa ko man te xam-xam yëpp ñaawlu nañ ko suñu ta sañoon daal muy jigéen ñi muy góor ñi lépp lu waay di jël di ko jox waajuram te jëme ko ci bisub suñu borom boobu muy tabaski nga wut ko ci anam goo xam ne lislaam gërëm na ko soo ko nga toog waaye nag dem dafi pexe ak i caaxaan yenn sax bëgguma ko tudd ndax lislaam ñaawlu gum ko ñaawlu ba am ci alal ñëw ni yàlla sa boroom nga koy jox loolu yëpp yàlla rek la. yëpp yàlla la wallaahi yëpp yàlla la. te itam doo ci am la nga bëgg te lay wan yoonu sawara. wala léegi kon sëñ nga xam ne nag léegi jour tabaski ñoom ay fo lañ ko jàppee. sabar ga boîte ba soirée ba bésub tabaski. waaw bésub tabaski daal ku ragalul yàlla bokkoo ci. yàlla ñi ragal lay wax ci bés bi. waaw mhm. yàlla dafa ni. yaa ayyuhal lazina amanu ittaqullaha ña nga xam ne ragal nañu yàlla ñooñu mm. ñu ni ko ha mu ni xaqatu haatihi dëgg-dëgg ragal yàlla mm. wala tamutunna illa wa antum muslimun mu ni ñooñu daal ñoom ñooy ay jullit yàlla nag ñetti nit rek lay waxal ci nit ñi ki nga xam ni daa am lum gëm gëm na diine lislaam te ragal yàlla ki nga xamante ni si nii xel maa ngi ci moom mi ngi ciy xalaat ak ki nga xamante ni si nii ñetti am am yi yàlla amal yépp gëm na ko mooy gëm na àdduna gëm na dee gëm na bis pinc mm. nit ki fii ak ngëmam àggagul foofu concerné wul yàlla moom ni mu jàppee boppam rek la ko yàlla jàppee boppam ndax suñu boroom amul jotug waxal wax ak jaahil yi waaye ñaam ak ragal yàlla tuuti xam nañ ni bis bii bis la boo xam ni delluwaay la bisub delluwaay ci suñu borom waaye du bisub fo di bisub caaxaan mm. yonent bi nag nee na moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi mu yàlla yónni woon iblis day geesu naa gis ko ci sama ginnaaw mu ne ci sama biir xeet wax nax na leen ci juróom jël na juróom mi yëf bëgguloo leen ko ñoom ñëpp juróom yooyu lañ topp jël na juróomi yëf fàttaloo leen ko ñoom ñëpp war nañ ginnaaw juróom yooyu yonent bi nee na iblis jël na àdduna bëgguloo ko nit ñi nit ñi seen lépp ci àdduna lañ koy male jël na alaaxira fàttaloo leen ko amul kenn ko ci xalaat jël na alal def ko ci ñoom gone lu tuuti tuuti bu yeewoo lu mu wuti rek lay lu mu am rek lay wuti. Hmm. waaye yaa ngi ne jël na xisaab mooy alal moom loo ci am lu tuuti donte dërëm la suñu borom dina ko xisaab bala ngaa bala nga ko romb xisaab googu iblis fàttaloo na ko nit ñi jël na seen kër ya taaral la leen ko looy am matériel la koy jëndee waaye jël na seen biir bàmmeel ya fàttaloo leen ko kenn jàmmul yàlla ngir ëllëg dégg nga wax bi hmm. rasulullah nee na nag la ca gën a garaaw mooy xeet wi nag iblis nax na leen ba pare ñoom da leen di defloo bàkkaar yu baari fàttaloo leen tuub ba kenn dootu tuub waaw te awliyaaw yi nee nañ nit ki nga xam ni wér na ko ni amul benn bàkkaar gimiñ gi wërta nopp ji di tuubal yàlla santuma laak nag koo xam ne leer na ni def nga bàkkaar maam Abdul Aziz Dabaax mu mag ma mos naa woo benn taalibeem ni ko ndax xam nga bàkkaar boobu mu sa def mu ni ko xalaat naa xalaat xalaat xam ma lu ma musa def ci bàkkar mu ni ko demal kon yow taqoo di tuub junni yoon par bis ngir ñàkk bàkkaar bi nga ñàkk bàkkaar lu waroon benn bàkkaar nag nu war a def buur jamono jii ñu nekk mooy axiru samaan gi ngay dégg ci alxuraan jamono la joo xam ni sayatin yi dominé nañ monde bi ñoo seen kilifa gu mag ga iblis mm. jaam yàlla yi nga xam ne nag yàlla dimbali neen nañ wan gannaaw iblis te toppi rasulullahi sallallahu yëf yii ku ci nekkul na ci mooy di tudd yàlla foo toll ci baatub laa ilaha illallah nga koy sikkar wala zikrullahi akbaru suñ boroom nee na lépp looy def ci kaw su ci tudd yàlla ko ëpp doole nañuy tuubal yàlla tuubal yàlla mooy ngay wax baatub astaxfirullaha di ko sikkar te bu ko wutal lim na bari lool ndax lépp looy sàkku ci àdduna ak àllaaxira yàlla def na ko ci biir yàlla nee na booy tudd yàlla di tuubal yàlla dinaa la jox alal dinaa la jox doom dinaa defar sa àdduna ba mel ni àjjanay àllaaxira kon loolu ma nga ca ba ca topp mooy di julli ci yonent bi rawatina nag julli ci yonent bi ndax julli ci yonent bi ñi silmaxa ci xol moo leen di wommat hmm. ndaw ñi nañu bari lu ñuy julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam su ko defee nag noppalu waaye jamono jii ni mel buur ku waññeekuwul ci kanam tuuti di nga am jafe-jafe mm. waaw bisimilah mooy lu ama ama am solo di vraiment message boo xam ne dugg na ci xol di wax joo xam ne vraiment man fi ma toog sama xol bi ngi sedd guy guy guy ndax ci yow laay nangoo saasu ne ne lekk tudd yàlla moo fare kaw lépp waaye Cheikh Ibrahima boo ma ko permettre euh, dama teewlu sànq sa benn waxtaan ak kilifa gu mag ma ne sama biir xol pour pourtant kii de fi ne ko fi mu toll ci wilaaya bu demee bay leen Cheikh Ibrahima ci wàllu ci wàllu ñaan yàlla loolu daal tag na ci sama xol ba jaaxal ma man buur waaw xam nga ñaan yàlla buur doole defu ko dëgg na xormam moo koy def eh. nit noo mën a tol ci àdduna te wóolu la du jëflante yow mm-hmm. ab sëriñ nag dafa am lu ko lay taay mm-hmm. li lay taay ak sëriñ mooy maandu ci jaam ñi ngay jëflanteel mm-hmm. nit booy def loo wax ak nit boo xëy suba dugal ko ci internet ba wala ñu waa mbedd mi yépp dégg ko di nga bëgg jëflante nit mu të xam-xam boo ko amoon ba mu ëpp duusi géej yi te sa làmmiñ wii téewoo ko mhm. amoo jaani biir fa tabaarakallaahu genn kilifa du jëflante gi kon kon sëriñ si fëgg dënn nag naan maa ñaanal diw diw maa ko taal diw maa ko nag maa ko maa ko te man mi la xam xam ni ngay jëflanteel doo toog mukk ci émission sax ba ni maag diw mës nañ jëflante nangam képp koo xam ni ñëw na sol aw dàllam dox ba ak sa kër ngir yàlla ñaan loola yàlla ci yaakaar jum am ci yow buur wan la gannaaw nga wax ko kenn ku mu mën a doon xamal ni am nga bàkkaar oh. bàkkaar boo xam ni diisaayu bàkkaar boobu buñ ko yenoon jaam bi du dox ndax suñ borom nee na bu ngeen fasantee ay mbir na ngeen ko téye ñaan yàlla nag ni yàlla umpee nit ñi noonu la waroon a umpee keneen koo xam ni yoonu nekkul ca la ngay ñaan ak sa diggante ki ngay ñaanal rek la ndax mbirum buur biir la mbirum biir su ko defee ñun sax rus nañ ñaanal nit mu génn dem waxuma la waa mbedd meeg waa public bi waaye ñi ma dëkkal dong dooy bañ ñu gis ñi may ñaanal bay xam ñooy ñan ak luñ fi wut ñun doxewuñ noonu ñaan yàlla gii ñu yor mooy gi nit yàlla yi yoroon mooy gi nga xam ni yàlla may na nit mu def ko kon nag kumpa doon ci koo xam ni yoonam nekk ci boobu. sëñ mooy sa baat bu mujj. bi mooy sant yàlla mi ma sàkk gannaaw ba ma boolee ci ñi nga xam ni ay nit lañ yoo xam ni ñu ngi koy bàyyi xel moom yàlla. Mm. dugal ma itam ci biir njabootu rasulullahi fexe ba mun ma cee génn. di sant Seexul Xaddim mii sama sëriñ mm. nga xam ne lu nekk ci man ci baatin ci moom la ko yàlla jaarale mu def ko ci man mm. sama digganteeg sëñ bi nag cant googu ñimu ma ko wax mm. waaw ndax fam ma toll la tax waaw di nuyu Seex Basiiru Abdu Xadar Mbàkke mi nga xam ni mooy sama wasila ñaan yàlla gii may def su ko neexul woon suba suba ngeen dégg ma ci leneen ndax moo may digal ma def moo may tere ma bàyyi moom la ma Serigne Touba booleel ci boole goo xam ne ci ismulaay alxasam la jaar. sant ñëpp di gërëm ñëpp wóor. ci barkeb say xi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bisimil ilaahi ci barkeb say xi buur yàlla dolli ay maqaama yàllaaw bismil ilaahi barkeb say ci mi buru yàlla dolli noo ay maqaama yàlla Bienvenue